nuyu Wilane TV Wilane ñu ngi lay nuyu yal na yàlla fay la yal na yàlla taxaw la sa liggéey sa taxawaay ak sa liggéey ci suñu wetu wéyjur bii waaw wax dëgg yàlla gis nañu taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci moom ak lépp lu rafet loo gis yaa ngi koy génne di ko feddale di ko bàyyiloo xel nit ñi di ko taxaw ci kër Seydi Hadj Mal yal na ko yàlla fay. amiin jëf ju rafet gu ne ko am taxawaay la sëñ bi. wallaahi ko am taxawaay la. ci YouTube bi ci Facebook bi fépp. waaw lépp yàlla na ko yàlla sàmm te yàlla taxaw ko yàlla jàppali ko. wax dëgg yàlla kuy wane lu rafet la te kuy jëf yàlla yàlla barkeel sa télé te kuy ba waaw waaw kuy benn la kuy rassemblé la. fu mu gis jëf ju rafet fu mu gis jëf ju rafet rek. Ah, te wax ba pare suñu wax na lu am solo léegi. gars yi programme yu bari léegi. waaw balaa kilifa yi di jël kàddu. fukki nit dafay des. loolu amul sens. benn jour dama ñëw fii Pape man daal benn programme Pikine la woon gi sax. maag Cheikh Mouhamed toog waykat yeeg ustaas yi ñépp mel ni ku nekk ci défilé de mode ku way dem dama am temps yàkkamti si Malick sa barke maam la naka la naka la way génn na pajax dem imaginaire ko ki ki war a waxtaan waxtaan bi sax temps bi mu am pour waxtaan ko du ko am ñëw ministre ñëw na maire ñëw na ba pare léegi kuy dugg ci tànt di nga indi bruit am nga sa hymne national bopp ñii ma Abdou Ndeye Mariam lañuy woy lañ leen woyal ñii ni inal maanaa la ñii góor gi ndar ndar la nekk ay ay ay yoo xam ni itam il faut il faut nit ñi nañu bàyyi xel ni man mënuma da nga bokk fenn seeni Hadj Malick wala maam Cheikh wala maam Serigne Touba njabootam dagg yitteem ñëw toog balaa ñu leen di jox kàddu wala balaa ñuy def leen ñu bàyyi ba ñëpp ne selaw

wala daal nit ñi dañuy fan yaa koy sàkk wala yaa koy am na gis nga ku woote wuute am na ñoo xam ne talu ñoo woote. dëgg la talu ñoo woote nit yàlla mooy séddale. mais imagine tante téeméeri waykat ku nekk bëgg a way te ngeen ne kenn ngeen noo yonent bi te mu leen ànd ci moom bokk benn table waaye ndoo mais ku ci ne bëgg nga wane sa baat bu neex kii jël bay bi fentee ko nii ba pare jël wayu mag yi di ko def comme comme mbalax di di sawaru. waaw xam ni tànt bi yonent bee ñu fi indi sallallahu alayhi wa ak ñëw ngir jëriñu waxtaan déglu waxtaan ba ñu def tem mais mënuñu comprendre loolu yëpp ñëw ba fii bëgg ko yàq ci ay yoo xam ni dafay jur leneen ak leneen ak leneen kon ñu gën cee bàyyi xel xam ni programme itam kilifa yi waaleykum salaam programme itam kilifa yi dañu bàyyi seen yitte bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane bi mu fi toog mbokk ak deret moo tax mu toog fi mais du jot bu mu am période bi mu toll amul kenn koo xam ne tey jii gars yi da gars dañoo fon ñoom rek ñoo ñàkk jot <laughs> ñun ñàkk ñu jot waaw te fekk jot moom su dul woon mbaax ak mbokk yaakaar naa ni ñu bari kenn du leen gis waaw kon su nit ñi bàyyee xel xaj Malick maa lay gay noo def yaa ci jàmm kon su nit ñi bàyyee seen lépp ñëw yàlla ak mbokk tax ak yàlla ak sagal wala yàlla ak cofeel ak kóllëre loolu nag bu ñu ko yàq ci yoo xam ni dafay daf daf ñuy tardé ëllëg waaw soo leen bëggee nit ñi kilifa yi di ñëw ci programme yi il faut programme ñu organiser waat ko lépp tegu ci yoon lépp tegu ci yoon su lépp tegoo ci yoon kilifa yi dañuy sawar mais gis nga ni ngeen def di ngeen dem ba dugg gisati kenn ci àddu di ngeen gisati benn kilifa te boobaa nag ñi organiser wala ñi nga xam ne ñooy ñëw ci tànt yi di bëgg di ruube doon ay microbe di ñoo yàq ñoo yàq ruubekat yi dafa bëri léegi. xoolal fii tey. ngeen baal ma de xoolal kilifa yu mag yi tok fi ni ñepp dem nañ. c'est pas parce que dañu hormalul kilifa yi de mais on a un problème d'organisation et que ce problème là ñun ñoko ko créé donc nañ ko utal solution. moy lan ñu fexé ba waxtan kat bi bu ñëwee ñu télé a écourté woy yi ñun bëgg nañ ay woy waaye ànd ak loolu yëpp animation animation la tudd bu mbolo mi xasse ba tew dañuy bolé animation bi ak waxtan bi dagg woy jox waxtan kat bi mu tambali ñuy woy muy wax suñu noppé ci lolu kilifa ya fa nek message ak orientation yi ñu wara jox njabot yi mais vous pensez que ça c'est normal ça ndax li sëriñ bi di wax nañ ci bayyi xel parce que kàdduy defar la té comme mom ak ñun ño bokk génération te xamna li ñuy dund c'est-à-dire il doit être mieux placé que n'importe qui pour le dire et pour le dénoncer

mais c'est-à-dire bu mbooloo mi teewee nañ nañ kii quoi nañ dagg ñu kii mais bëgg xool woyaat woyaat woyaat donc mais di woy di woy noonu loolu neex na baax na quoi mais c'est-à-dire waaw yooyu moo mooy indi yii waaw waaw xam nga Seydina Ousmane Seydina Ali xam nga yéen xam ngeen xelli ni ñun bu ñu amoon ay milliards dañ leen di woo ni leen ngeen tagg yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñu leen di jox ndax loolu am na lu muy def ci suñu xol yi ndax xam nañ lan mooy tagg yonent bi mais daje moo yombul te comme daje yombul te occasion la te bindu war naa mën a génn mais dafa nga ne mos xaaj Malick fi ma ko fekk nii jaadu woon na ma di ko fi fekk mu di waxtaan ma di ki fekk fii ñu toll nii te mu leer ma ni bi 21h fii fees na del ba tali ba foo nga loolu jaadu na man xuloo naa ci ba tey waaye léegi comme nag mun ma dara seen bi dangay wax parce que gis nga kaay ma wax la benn affaire yëf wax rek ak waxtaan la. su yàggee rek mu jooyantiku sëriñ bi ngeen baal ma wax bi mu ngi bëgg a bari salaamaaleykum. nee nañu dox suy say day say dox suy say fu muy sayee ci ay mbokkam waaw ah, ci ay mbokkam fi ma nekk nag fi laa sañ a waxee moo tax ma waxee fi waaye léegi ah. waykat waaw waaw de kenn daal laa xam ne am na ci fula muy Tafsir Gaye gis nga moom soo ko joxee. pour heure mu des cinq minutes asalaamaaleykum wa rahmatulah nii lay def moom am baytam baytam nii lay def ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp wax ah man kat donte la fa la yem man kat temps bi temps bi ngeen ma waxoon de dafa passé lii ma def sama temps salaamaaleykum wa rahmatullah gis nga su ñëpp doon def noonu léegi réew mi changé. léegi nag njaboot gi nga xam ne ñoo ëmb ci tariqa bi nekk ay waykat wala firikat dañuy fàtte li leen tax a xew moo tax yàq gi bëri ku fàttewul ni Seydi Xaaji Malick la fal dëgg la soo ñëwee ci tàntu Seydi Xaaji Malick balaa ngay def dara jël la njukkal Seydi Xaaji Malick waaye gëmuñu Seydi Xaaji Malick bari nañuy wax ni Seydi Xaaji Malick nga wax mu daanu te gëmu ko wallahi alazim moo fi gën a bëri ci ci te Maodo qualité am Sidi Ahmed danaa faral di wax ni qualité Maodo rek Sidi Hadj Malick qualité am rek waroon na ku bokk ci moom suñ la xoolee ngay royukaayu jamono kenn warul jubbanti ci yar te dafa mel ni léegi njaboot gi dañu dañu dañu amatul yar defe surtout éducation bu baax mooy yar moo amatul te Seydi xaaj malik sama mama Hadj Tidiane dafa ñu doon nettali ni ba mu nekkee ndaw way juróom dafa ni ko dama naa la yóbbu ci su dul woon Maodo dafa sëgg ci bëtam yi dama la yóbbu ci moom mu jàngal la waaye soo demee di jàngi bëgguma nga jàng fa téere yi jàngal ma tegginu mawdo yi soo doon jàngi bëgguma nga indil ma téere yi indil ma tegginu Seydil Hadj Malick léegi ana yar da ngay gis léegi lu metti loo xam ni mooy xew ci njaboot gi diw ay waykat maam moo ñu wax loo nag tey ñëpp ñun njaboot Seydi Hadj Malick lañu il faut que mu leer du càggin ay sëtu Cheikh Al Hadj Omar wa déet njabootu Seydi Hadj Malick lañu lu yàq Seydi Hadj Malick ñun ñëpp a ci war a kaas mais njaboot gi yarootuñu léegi da ngay gis ci biir. biir rawdu Seydi El Hadji Malick damay gis nit taxaw yore téléphone am ci biir rawdu ba waxuma la ci tànt yi nag Seydi Ahmed ak di xëccoo place ñi war a yaatal tey jii ci biir zawiye Seydi El Hadji Malick ñooy njaboot gi te njaboot gi xëccoo place gi léegi waxuma la nag léegi tant yi ñëpp léegi maam su fekkee li sama turandoo waxoon Seydi Cheikh Ahmed Tidiane si waxoon ci ci politiciens yi ak taalibe ak sëriñ yi léegi spectateurs yi nag léegi waykat yee leen ëpp te waykat yi ku ñëw rek bëgg yow soo mënee tuuti jeex na tuuti rek soo ko xasee tuuti rek jeex na danga yaakaar ne yaa ci nekk soo ñëw dangay am sa sa clip da am sa clip bi ngay àndal préparé ñi ngay ngay say fans soo ñëwee ñoom ngay ànd si tante bi soo woyee pare dem sa yoon ñëpp ànd ak yow xool fii nii fi nekkoon rek ana yu woykat yi fi nekkoon ana yu mais il faut nag léegi ñu bàyyi ci xel loo xam ne dañ si war a bàyyi xel lii góor gi wax léegi yëpp li ko waral mooy foye suñu sëriñ si moo tax ñu leen di foye ñun ñun la Sidi Ahmed ñun ñooy foye suñu sëriñ waaw fooy suñu sëriñ nag mooy ñàkk xam yàlla ndax damay wax ni Maodo radiallahu anhu wala mag ñu baax ñooñu liñ ñu jàngal mooy ñu xam ni yàlla ngi ñuy tiim balaa ñuy ragal suñu sëriñ nañu ragal yàlla yow da dem ci dëkku Seyd Xaaj Malik ni doon doon doon am looy jëfandikoo ne ah Maodo Maodo tax duma def lii ana yàlla mi nga bàyyi dakaar légui nak foog ñu dellu ci foog ñu dellu ci yar te Maodo yar nañu damay fal di wax ni bind Maodo lañu bàyyi Sidi Ahmed bind Maodo wayu Maodo lañu lañu top waye bind bindu dañ ko bàyyi te nak way dafa neex hadisa kim kay way dafa neex mo yonent bi foog mu neex ki ci nek nak yaakar ni neexay bobu lay yobale ba lo ci bëgg def ko si te kat yi légui ci way yi lañuy xale yu rafet yi ci way yi Firika yi sax da ngay firi ci biir tante bi di xool fan sa club lu lay faral di wax ma ni ku dem ba yaakaar ni Sidi Ahmed ci yonent bi nga nax jigéen ba nekk ak moom te ci yonent bi nga nekk ci tante gis xale bu jigéen ñëw muy sa fan sa club nga jël ko jëfandikoo ak moom ci tante yonent bi nga ak moom loolu jarul xalaat di way lan ngir fans rek di firi ngir fans rek kooku su ko mooy tuul ëllëg Maodo du la mënal dara de te léegi li jiital gars yi rek mooy bii am am beeg jigéen ñi fans yi fans club loolu rek ak vie yu bare waaw vie yu bare mooy li nga wax léegi maam kon nag su ko defee loolu mooy jàpp réew mi moo jàpp moo tax ñu ñuy foye ku rek foye mag ñi ku jug saaga mag ñi ku parce que amatuñu sax nu ñuy défendre suñu mag ñi kon nag yal nañu yàlla musal yal nañu yàlla jàppale mais nag jot na ñu dellu siwaat njaboot gu foo bokk nga dimbale sa sëriñ ci baaxal ko nga dimbale sa sëriñ ci baaxal ko su fekkee murit nga nga dimbale sa sëriñ ci baaxal ko su fekkee tijaan la la même chose waaye nag bay bayal gi bari na njaboot gi nekk ci kër gi tey fooy folklore wayu ti wayu tariqa bi folklore ah yi di am sabar boole ak wayu di def sabar te yéen yëpp ngeen koy seetaan maam yéen seen wayu maam ñu koy sabar yooyu normalul jar na marche jar mais soo waxee léegi ñu ñu ñu ñu ñi ñi nekk ak ay taalibe ñooy faral kooku tabarakallah jërë ngeen jëf ñu ngi sant mbokk yëpp nag ci mbokk ñi ñi doon jàppale maam tiijaan ci kaddu kër alxaaji Tidiane ñi ngi yëpp te suñu nijaay mi toog alxaaji Mamour fa tabarakallahu di sant ñi ko jàppale ñëpp ci jataay bis bi ndax moom rek mënu ko te xaritam jàppale nañ ko ay mbokkam fa tabarakallahu ñun nag xale bu mel nii ñu mel nii rek la ñu bëgg kuy góor góorgóorlu ci tariqa bi xam li nga bëgg xam li nga am mooy lan soo melee nii dañ la jàppale te lii la lii rek la ñu soxla mu xam lan mooy ndonoom ndonoom mooy alxaaji Tijaan mooy maamam te daan nañu wax ni sama njaboot gi yéen ku dul don lu dul téere loo jàng doyul loolu la daan wax góor googu daan nañu wax ni ku dul doon téere loo jàng doyul waaw donc lu ngeen jàng doyul lu ngeen jàng nañu nañu xóotal njàng mi nañuy jàng nañuy gën a jàng xam lan moo ñu war lan mooy suñu réalité ñu nekk ci nag di ko doxal comme ni xaj Tijaan ni maam ni nga defee ni lii mooy seen ndono waaye mu nekk woote boo xam ni woote yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek tax mu am te ku fi ñëw tamit bu mu fi yab diine woote bi ku mu fi ñëw bu mu fi yab diine waaw li ñuy yebe diine bu mu nekk mukk ci woote bi woote bi yëpp na dellu ci yàlla na dellu ci jàngale sayidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ñun looloo tax ñu bàyyi fi ñu bàyyi ñu fi looloo ñu fi bàyyi gaa yu soow fii ak seen wax ju bari ji li ñuy wax lu ci ëpp dëgg la parce que ñun ñoo koy def wallahi wallahi maanaam li ñuy yebe diine yëpp ñun ñooy organiser woo nu tax ñoom ñuy potax lu ci loolu wallahi wallahi Seydi Ahmed motax tax bayi Khalimam solo ngeen bayyi ci xel xali yi ñu ngi lay sant bu baax di ñaanal yalla yannu yalla may yannu yann ko yalla saxal di gërëm ñëpp ci turu suñu nijaay Mamour ak suñu nijaay haji Ibrahim ñom ñi ngi fi teewal fi Al Hajj Tidiane ci kaddu ci al alxaaji Lamine ñang su defé nak lool rek lañu waxone dañ ko ci sanni tabarakallah ñu مام مونيان دي نيانال مام سي سباركه مام دي دو يو سباركه مام يو صاح موي يو صاح نك سباركه مام سيد الحاج مالك ناخ ييتام غام سون كاي واخ سا مام لا دنگ دي ما فال دي واخ نك موم دا فا گنا سيو ني سيوال غام دنگ واخ اوكي اف غاي دنج نان مو سيوال غام ملن دي دا فا گنا سيو ني سيوال غام Seydi Ahmed du loolu ah moom mooy Maodo koo koy sa maam nag maam si nga maam yu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm yow moom fa tabaarakallah wax naa ni bi nga xàmmee rek ci nga ma taq man def ma sa waajur li boobu li yëpp xewagul loolu moom sama diggante yow loolu la ma yàgg la sopp nga yàgg ma sopp daan naa jaar Tiwaawan sax tey sama xel rek nekk ci yow ma ne tey moom wóor xam naa du ma gis maam Abdou damay gaare si kii waaye du ma gis mam damay jéker mu ni tëll yàlla xam nak miraran wa takraran du jeex ma xamni dama la kay faral man ki am nga ci am nga ci am nga ci ci ru mam aw tabarakallah yan la yàlla musal yan la yàlla musal si yan la yàlla musal waye di ngeen tollu ni dal am ngeen cër bu reuy seen kër mam tabaarakallah ndax relève baa ngi ñëw te ku nekk war na taxaw indi ci benn birigam waaw ndax Maodo liggéeyam du jëm suuf liggéeyam kaw rek la jëm ba ilal abad ku si nekk nag war nga teg dara xam ne lii maa ko si def te ku si def dara feeñ nag waaw Maodo mi liggéeyam ku si def dara feeñ waaw loolu la ko yàlla defal nag su ko defee yàlla yàlla sàmm bu baax li nga def rafet na kóllëre la ñu ngi di sant Seydi Ahmed moom suñu soppe la fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin yàlla mooy maye yàlla mooy maye nit ki ni mu tolluwaayam waaw indi saa yi nit ñi fa tabaarakallahu ñëw coow Seydi Ahmed leen ah yàlla kooku may nag waaw borom mooy cër la waaw moom moom cër cër la cër la am waaye li ko li ko ko may rek nag mooy nangul mag ñi Seyd Ahmed nangul na mag ñi te du caaxaan wallahi wallahi si wallahi fàll loolu mooy li ngay wax léegi waaw ñun ñoo war a fexe ba kenn du yëpp mag ñi di ko jaari ci ñun hakaza am na koo xam te ni bii ni am na lu nga xam ni mhm. su ko ékkatee mu xool na yow xam na ni bu ko daaneelee ba kanam mi ngi ci xottu nen mhm. du ko def dëgg la man du ma toog ci benn jotaay mhm. <laughs> تبارك سيد احمد تبارك الله يلا يلا سمو